Whoa, whoa, whoa, whoa. loo ma laaj ma jox la fa bëgg ñu dem ma bébé li ne ci yow mu ne ci man bëgg naa la xale bi man yow laa bëgg nga doon sama yaay doom man li mel laay yaa ma ko mën a jox tu te vois au fond de wa opmodo twa tia chia Kudeg lo wa hinan Ya kumole da khajo Setan wa kuldeg Wa ye ya kunne hala Yo la bekenga do Sama ya ye do Yo la bekenga do Sama jo ongoma Yo la bekenga do Sama ya ye do Yo la bekenga da Sama bika jox naa la sama xawal yaakaar naa ni doo ko yaax baby jox ma sa xawal wallaahi du ma ko yaax dinaa am ak yow ay doom di leen di toppatoo ñu ree dama naa dund ak yow lii loo ñuy kap di foo di ree ma doon sa coon sek nga doon sama jaaga ma doon sa buur nga doon sama lingeer I'm your king girl you are my queen girl sa dyan tagadon Sa may dyan goma Yola pag ng gadon Yola pag ng gadon Yola pag ng gadon Yola pag ng gadon Yola pag ng gadon Sa may dyan Yola pag ng Love you you Love me Uneka king alone Holkom mom mo folla Nga ne ko I love you Yow la bëgg nga doon sama yaay doom Yow la bëgg nga doon sama yaay doom la bëgg nga doon sama yaay doom 站起来！

bëgg ñu dem ma bébé ñu ne ci yow ma ne ci man bëgg naa la xale bi man yow laa bëgg nga doon sama yaayi doom man li mel laay yaa ma ko mën a jox tu te vois au fond de moi ci man ci man je me vois au fond de toi ci yow ci yow bu déglu waxi noonu ياكم ولا تاخجوك سيطان هو كل دق واي ياكم من حلا يولا بدن غدور سما يا يدور يولا بدن غدور سما يا أنغما يولا بدن غدور سما يا يدور sëñ naa. la waaw. waaw tey ñi fekkoon la ñu waaw wax dëgg yàlla gis nga bis bi moom kenn waxalu la ko ah. yaa gisal sa bopp ah. xale bu ndaw la xam gis nga ñi mu nekkal ñëpp it ñëw wuy su ko franchement parler ci ni mu naay see ah. dafa nekk ku baax nag xale bu yaru man ak moom wax dëgg yàlla moom depuis bu yàgg ba tey la ko yaayam yëkkati jox ko jox ma ko teg sama loxo ma nekk ak moom Petersen wax dëgg yàlla nekk bu rafet la fa nekk kenn mosu koo àtte kenn ba pare xam nga sëñ moo doon nitu kersa la daal wax dëgg yàlla ku baax la ku yaru la ku yaatu la moo ko may lii daal ay moroomam nekk nañ Petersen woote fa mais demewul nii xam nga kon nag ak mbaaxam daal moo ko def ni daal xam nga ñu koy ñaanal moom ak soxnaam xam nga yàlla jubóole leen waaw yokk seen i wërsëg boole leen defal leen jàmm daal waaw. waaw tey tey nan nga gisee bis bi. waaw bis bi yow ñun ñëpp ñoo ko gisandoo xam nga rek gis nga ci nawet lañ nekk kenn amul temps mais gis nga ñëpp bàyyi nañ seen i yitte teewal ko ndax lépp moom la daal boo ko wan nit ñi daal ci yaru ci baax ci bari kersa xama ci leble lu baax daal li lii rek lañ ko mën a fayee te xama rek ni mu demee la sax moo tax bis bi dem nii mais mënoon na fee gën a kii daal mais yow gis nga ni mu demee waaw ok jërëjëf waaw jaajëf waaw maa ngi lay fay bu baax baax. waaw tey ñi ñëwoon ci bisu Baye Modou fekk la tey lan nga ñu mën wax. Baye Modou li ko mën waxal mooy borom baax la nit ku oyof la ñoo bokk marché bu ñuy liggéeyee jëndal garaan la koy sax téléphone lan la fekk borom baax la nit ku baax la ñaanal bisam bi mu dem ba am si ay ay ay taaw ak ay rakki ak ay yeneen doom di ko ñaanal ju bu baax a baax barke borom Touba. yow célibataire la man waaw. xam naa dinaa marié lu néew néew rek. incha allah ñaanal rek. non waaw raw nañu mais raw nañu sunu ganaar nekk fii yëpp ganaar yi raw na leen ah. xaaj gi yëpp kenn amago <laughs> dinaa takk incha allah ah, jaajëf te Amor maa ngi lay ziar. waaw tey ñu ñëw fekk la ci bisu Baye Modou bi tey loo ñu mën a wax ak euh, lan mooy sa relation ak euh, Baye Modou. Euh, da ngeen ne bisu Baye Modou mais man du ma ne bisu Baye Modou sunu bis la. parce que Baye Mour dañoo yarandoo ci koñ bi euh, mu nekk nit koo xamante ne si ko dégg si coow mosoo ko dégg si wax Baye Mour ban dalee ànd ak léegi mosoo dégg euh, jàppal Baye Mour wala bàyyil Baye Mour kon donc sëñ Mour daal li ma ko mën wax li mën a wax ci moom bëri na trop trop sëñ bi bëri na trop moo tax heure bu xew xewlee nii rek la mënoon a mel. nii rek la moo ñëpp dañuy bàyyi lépp lu ñu daan def ñëw fekk si ko te xam ni moo ko liggéey gisee mbooloo mi yëpp nga war a xam ni moom lu lu mu liggéey la nit ku baax la waaw ñu ngi lay fay waaw sëñ Modou li ñu leen si mën a wax bëri na parce que ñun ñëpp ay famille la ñun ñëpp ay xale lañ quoi ñoo foowandoo doon ànd di football yi suba ngoon guddeeg bëccëg di nekk benn garam place kon tey jii mën nañ ne la sunu bis la quoi comme ni ko Mamadou waxee sànq sunu bis la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. parce que tax na tey ku ci xewle ci gang bi ñëpp ay jug ñëw jàpp leen sa bis ba mu réussir mais booy seet nit ku baax nit ku yaru nit ku tey rek jàppal sëñ Modou wallaay asim nit koo xam ne amul benn problème am jom nangoo liggéey parce que bu ko neexoon ne sama papa ngi kaaw def ni yeneen booy def xëy daaj njaax mais defu ko chaque jour mi ngi pere seen comme ay moromam di ko jaayante parce que loolu foofu la am jom commencé bul xool sa papaam bul xool li sa yaayam da ngay jug ñafe pour sa bopp mais moom loolu lay def day dem ñafeel boppam xaaruñ ma sàmm xaaruñ ma demee parce que loolu mooy yëfu góor parce que papaam bu defoon noonu mu def bu papaam deful ñafewul woon tey du am lii mu am comme moom dafa jël exemple ci papaam papaam ñafe ba am li mu am moom xoolu li papaam mën a xaar ma dem ñafe ji pour ma am li sam papaam loolu nit ku am jom moo koy def ak nit ku gëm boppam kon du ñu def di ko ñaanal suñ borom gën koo jàppale aar ko yiir ko may ko ci njaboot gu barkal gu góor gu jigéen ba yaayam bi nga xam ne dëdd na barki demoo Njaay mu am ci turandoo papaam am ci turandoo Seexal Xadim am ci naa Seydina Mohamed am ci turandoo màgget mi nga xam ne nag day doog a ñëw ñun kooku la ñuy conseillé liñ koy conseillé mooy na jël jëkkër mu nekk xaritam nekk àndandoom nekk léppam bu mu wut xarit bu mu wut àndandoo bu mu wut kenn na jël jëkkëram def ko mooy xaritam parce que dëkk bi dafa doy waar àdduna doy waar te l'essentiel fi jamono tollu sa jëkkër tant que yéen a ngi toog di waxtaan réeroo du ma sa parce que jigéen dina am place boo xamante ni ñi ko bari bëgg day bari te moom du ko xam léegi nag fi lekk yaa ngi wut ay xarit doo xam ki la ci bëgg ak la ci bañ ak ki lay nga ñàkk fayra doxaleel nii defal nii defal naa yooyu bëri sa yu bëri di am ay problème te du yàgg trois mois six mois gis nga xale léegi ni ñu sëyee mais l'essentiel li am solo mooy defar sa jëkkër sax xarit sa àndandoo même man sama soxna Touba la jógee sëy si fii moom tamit Touba la jógee sëy si fii man nag sama soxna instant bi def nañ trois ans loolu laa ko digal naa nekk sa xarit nekk sa àndandoo del toog sama wet lépp lu la naqaree na wax ma ko lépp loo bëgg wax ma ko bul wax kenn sa soxla ku dul ma parce que déjà bi nga bàyyee sa kër ndey sa baay ñëw sa kër jëkkër sa jëkkër mooy sa ndey mooy sa baay kon soxna Maguette dañ koy dalal diko wax alhamdullilah mu ñew ci jamm ak salam japp jëkëram def ko xarit def ko doom ndey loolu lañ koy ñaanal suñu borom defal leen tawféex musal leen ci cat ak saytaane musiba bak bala ba sey bi nek sey bu barkeel wasalaam jaajëf Moussa nuyu naa la. fay naa la. wa Musa tay ñi ñew ci bisu ki nga xam ne mooy Baye Modou fekk la yan relation nga am ak Baye mo ak waaw euh, sëñ Modou sunu sunu sunu waay la sunu sunu xarit la. Euh, ñu yàgg ànd lu léegi ko par exemple parce que jàpp naa ne fii ci koñ bi sax ñu fii ñu bëri dëkkuñu fi ñu ñoo fi dëkk comprendre bu baax waa ñu am bu rafet euh, mu nekk waaju baax waajoo xam ne duggul ci ci lu yoonam nekkul on se dit on se duggul ci lu yoonam nekkul comprendre bu baax fonk na liggéeyam fonk na famem fonk na xaritam waaw loolu daal laa xam ci moom nit ku baax la franchement parler waaw. waaw. ah waaw mooy comme li ma ko yàgg a rek mooy euh, jigéen moom boo ko boo ko boo ko boo ko takkee da nga koy yërëm comprendre baax ngay ngay fenetal lu bari parce que jigéen moom kenn du ko topp boo ko toppee moom chaque jour di nga fase bay bëgg a dee comprendre baax euh, yàgg naa ko wax te dinaa ko waxaat mooy surtout nga yokku muñ yow góor parce que bu njëkk jigéen moo daan muñ di sëy léegi nag góor mooy muñ di sëy te loolu c'est la réalité parce que ñun ñi dañ koy dund maa ko jiitu ñoom ñëpp gaa yëpp man maa leen jiitu ci ci ci ci jabar comprendre bu baax bon euh, képp ku ji waaj a takk sax di nga ñëw laaj ma conseil ma wax la comprendre bu baax lool laa ko mos a euh, loolu laa ko wax te loolu laa koy dellu di ko waxaat muy muñ kese kese parce que kii bon jabaram tamit xam naa nit ku baax la waaw xam naa nit ku baax la bon te xam naa ne daal am naa ci yaakaar daal sëy bi dina barkeel dina ci am njaboot bu bu bu barkeel bu kaw jot incha allah rabbi maa leen koy ñaanal waaw. waaw jaajëf. sëñ bi nuyu naa. waaw waaw sëñ Modou Faye moom suñu benn gaañ la ñoo bokk nekk ci daara ji bu yàgg yàgg depuis yàgg na trop wax dëgg yàlla tey moo tax ñu nekk fii ñoo bokk fi ñu benn marché bu ñu liggéey alkayda mais borom baax la xool bu rafet la yor euh, boo ko xoolee xam ne daal mention spéciale euh, depuis daara ja ba léegi la woon dan dala ànd ba tey jii nii xam nga yàlla boole ñu dafa déplacé wu ñëw sama gaale xam nga ñu bokk marché zéro faute waaw ñu koy daal sëy bi dem ba ci kanam ak kanam xam nga yàlla boole leen def ma barke xam nga ñëpp ñoo yëpp ay marché bi ñoo bokk nekk waaye borom baax la daal wax dëgg yàlla mënuñu ci wax moom lu bëri daal wax dëgg yàlla waaw man xam naa Baye Modou moom miinante wu ak moom waaye màggat moom moom laa miinanteel waaye ku baax la daal laa mën a wax si parce que tout le temps nemmee ko di ma woo di déggante ak man xam naa daal ku baax la maa ngi koy ñaanal yàlla sëyam bi li mu ci bëgg yàlla defal ko ko kontaan naa trop wax dëgg yàlla damaa mënut a wax nag moo tax. màgget baax rek laa xam si moom billaay baax na en nit ku nit ku baax la daal billaay damaa mënta wax rek looloo tax maa ngi koy ñaanal yàlla euh, sëyam bi moo am si ay njaboot yu barkeel lu mu ci bëgg rek yàlla defal ko ko loolu rek laa ñaanal waaw sama wutaree ngi nii. madame Maguette dëgg la waaw. ah kon madame Maguette nii naa la. ndeysaan la baax waaw ah, monsieur ah, ni ma la accompagner day ñu ñëw seet sama waay yaa ma gën a xam xam ah, man su ma jógee rek jug tax loolu la waaw. waaw tey lan mooy sa relation. waaw Modou moom suñu relation dafa yàgg parce que marché moo ñu boole avant tout marché muy Sandaga Sandaga quoi ñoo bokk ñoo bokk Sandaga mun nag gaan bu baax lépp bi ma xamee ba léegi wax dëgg yàlla moom kuul la laa xam si moom gaan mu timide la bilaay walaay bisam bi niir la mënoon mel quoi yàlla xam na parce que bi ma ñëwee ba léegi léegi fi gis si mbooloo mosuma ko gis fenn niir la mën demee barke yàlla même sama xew bi ma ko amee bi ma ko yëgalee tamit lu leen la ci daj bilaay walaay day déplacé fii ba Touba di ñëw ay xew fu ne dafay dem ay xew kon niir la ma mënoon demee quoi waaye li mu koy conseillé mooy euh, màgget mu teel ñu ko quoi nañu ko teel bu baax a baax parce que jigéen moom ah da ngay muñ la nax naxtaan defar quoi loolu la parce que jigéen ñi moom ñoom ñëpp la quoi ñëpp la koo ci yor da ngay mën a muñ rek muñal xam nga soo muñee rek yàlla mën leen dimbale ngeen am ay njaboot yu barkeel sëy bi yàgg quoi muur moom gaayan bu baax la wax dëgg moom bu dee moom la moom tiiruma si moom quoi franchement ok merci beaucoup waaw ah, fay naa la sa waay waaw tey ñu ñëw sa bisu Tooma bi fekk la fi tey lan nga ñu mën a wax ci bis bi ak lan mooy sa relation ak euh, moom waaw Mouré yaa gën a xam man moom fii laa dëkk fii yaa gën a xam tout près fii si ginnaaw rek mais moom yaa ma gën a xam grand bu baax la xam nga yaa ma gën a xam te baax la tamit xam nga yaru na xam nga chaque jour mu ñuy raxam laa mais chaque jour daf may tooñ si whatsapp bi mais tooñ bi it du tooñ kii mais daf may tooñ quoi naa ma génn si ligne beeg yooyu noonu mais sama waaju baax la waaw yaa gën a xam waaw gis nga ñeent ñii moom yaa ma gën a xam jaaleen ñii ay doomu ndey lañ quoi ñii si doom yi lañ bokk waa ñu ñoom. man maa daal man maa daal ndax dëgg yàlla man célibataire laa quoi <laughs> non dara yàggatul dara yàggatul. non waaw dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla daal. waaw ñu ngi si ginnaaw waaw. waaw ñu ngi si ginnaaw waaw. waaw ah, ok merci. sama mbëggeel sàmm yaa ma def kumba yaa ma def jaxaay kumba ci kumba But love, love, love, love, love, yaa ma def jaxaay kumba ci ñaari jëmi te njukkal la. ñett te njukkal la. eh ñetti jëmi te njukkal la. ñeent te njukkal la. ñeenti junni. juróomi junni. juróomi junni. juróom benn junni. juróom benn junni. juróom ñaari junni. juróom ñaari junni. juróom ñetti junni. juróom ñetti junni. juróom-ñeenti junni juróom-ñeenti a nii mu ko mën a du ma ko defee nii mu ko def ñëpp a kontaan macha allah ana gis ngeen. gis nañ ko bu baax barbet na sangu. lii kay leer na nag xaar ko bi ngi ñëw na ah yow sëñ Fane fii. mais ki doon dawal nag lii. dama sarbet.

t h Sana moo dee ko futti dee ko futti dee ko futti déedéet futti dafa salte te wi ñaaw bul ko futti xam nga noo koy def lay lay lee laa xoola lalal salal teg teg nga naay papili yi taxaw xoola gisal wodoo weex daal la jële bu sa jëkk wodoo lu a weex daal la jële bu sa jëkk saa doom ji yéen ko sa yaari xotti taat ba mu ni la xinit del borxal del borxal del borxal gisal saxal ko sa ween jéñ ko sa wotaat te naa ko yow la affaire bi yow la tabaab kàlla macha jarbaatum Ndiogu Mbaye laajte xel koom jarbaatum Ndiogu Mbaye Ndiogu sama yaay bokk ndey baay. kon moo tax wax na bagage na kii tubaab kàlla macha allah arma nga ko rek yëppam daa kase ak léppam daa macha allah sama doom ji jigéen ji baax nday baax baay sa bopp moo ma ko baral ma xool ma xool ma Yeah. Πάτε το κολοτσό. Γύρω Μπένι πίσινια. πίστη μιάρη πίσινια. asa baat bakkan nga teg borode muy ñaar ko ak benn nga teg coob muy ñaar ko ak ñaar kol muy ñaar ci mosa ak juróom ñetti saak ñaari peeri

passé fii dugal na fi ak kol ak socc ak bañ ak day ñama ñama yooyu xam ne day baax ci man tax moom mu àmbale ko la sama xabaar yaakaar naa ni doo ko yaax sa xabaar wallaahi du ko yaax bëgg naa yow ay doom ñu di toppatoo ñu ree dama yow lii loo ñuy di foo di ree ma doon sa coonu sek nga doon sama jaaga ma doon sa buur nga doon sama lingeer I'm your king girl you are my queen girl Mano sa janta da don Sama jongo ma Yo la pegang ga don Yo la pegang ga don Yo la pegang ga don Yo la pegang ga don Yo la pegang ga don Sama ya i don xanaa kontaan si rek nag bis bi moom cere ku sëb lañ ni boole wuñu ña nga ànd ca tool ya ma kontaan torop nak ndax teraanga yi moom dara manké wul su demb bi ñëwee ba légui amul luñu tajul wax deug yalla señ mo baax bu bëgg dé nekk sama rak ju baax wax deug yalla bëgg ma damay wo téléphone di ak man xalaat lu nekk lay waxtaanee ak man wax deug yalla kontaan na daal sant na ñëpp nak sama dëkkandoo sama ñëkke yeek doomi ndey ak doomi baay yi kenn desul kontaan naa daal yal nañ fi ñëwaat xewu jàmm ak salaam barke Sëñ Fallu jërëjëf. xanaa mu toog rek muñ góorgóorlu fonk ay goroom ak njëkkeem rek am ak ñëpp jàmm bañ am ak kenn xaar ma yàlla ndax sëy moom neexut man mii di yaayam fañ ma tegoon ba tey jógaguma fa kon nag bu xoolee ci man rek na toog ba sey loolu rek laa am lu ma koy conseil fi nga mu muñal ko rek mu muñalal ma ko rek yërëmal ma ko loo rek laa am lu ma koy wax waaw ndax xale rek la yal na leen yàlla boole jàppale ci barke Serigne Touba. waaw kay maa ngi lay fay. li nga gisee li bis. bis neex rek. moom wax dëgg yàlla. suñu xol sedd na guy guy guy guy na ñoo ngi ñaan ci yàlla. yàlla saxal ko fi. te may ko fi njabootug lislaam. te jubale koog ak ñi ak dëkkandoom ak boroom ak ñëppam. yàlla suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko def. waaye suñu xol sedd na guy bañ fi ñëwee ba nag nag moom xiifuñu maruñu. suñ dara manquewul lépp lu ñuy terale na góor rek terale nañ ma kon ñun suñ xool seetlu na guy di ñaan yàlla ak Sëriñ Tuubaa yàlla na ko fi saxal te may ko fi njabootu ñu daal liñ ba damaa mënta daal waaye sama xol seetlu na daal. dëgg yàlla neex na mais màgget mi nekk xale doog a dugg si néegu sëy boo amoon loo koy conseillé ma di ko conseillé mu mu def na mu defoon fee rek muñ te góor ndax moom amatul laa mañ te du dox du wax te loolu bu ko nekkee fii. bu soobee yalla ñam am ci moom lu ko nakay ndax du dox du wax ak wax le nga ma Maguette Gaye wax li wala moko ko fa def do ko dig amut mañ ta du wax ta du dox kon lam nekkon fee bu ko nekké fi bu soobee yalla xol dana seetlu bu ci mom da koy conseillé mu déggal borom kërëm déggal borom déggal ñu fekk ci kër gi da xamni sey mom ben neexu ca jaamu yalla rek la bu dee jaamu yalla nak da ngay tak sa ndigg te lu xool tax gumbalu waaw lool ngay def ba la ngay ba suñu borom dimbali la nga jot la ngay saako loolu rek laa koy digal waaw. mu muñal ko te yërëm ko te di ko dimbali nga xam ne jigéen buñ la ko joxee góor kenn du ko muur di yóbbu jigéen rek la ñuy muur di indi loolu lu ko waral mooy lam doon jigéen ñi tax loolu nag ci lay sukkandiku ba di ko muñal di ko dimbali di ko suturaal te di ko yërëm. waaw te lu mu ko mën a jàppale rek mu jàppale ko ko wax dëgg yàlla te sëñ Modou tam amul problème moom man wax dëgg yàlla yar ak teggin rek laa xam ci moom li may fekk daa raxmaan lépp xaw ma ci moom du dul yar ak teggin amul benn problème yal na leen yàlla lafal cat maa ngi lay fay ni nga bi tey. xanaa kontaan ci bis bi rek bis bi moom neex na bañ fi ñëwee ba léegi lekk nañ naan nañ lu ne def nañ ko kontaan nañ suñu xol sedd na guy sëy bi yàlla na bokk sëy yi aras kontaan nañ yàlla na ko yàlla may njaboot bu barkeel bu lislaami barke sëñ Fallou sëñ Modou kontaan nañ ci mom màgget gee nag ñu diko diggal mom moom mënul ay tantam rek ndax ñun ñoo lay tantaam waaw gor góorgóorlu bu baax rek ci sey bi top toppatoo goro yi toppatoo njëkkër top do sëñ bi def ba mbax rek ya ma gën a xam. léegi màgg mi doogay si sey néegu wa yow bo mo lo koy conseil loo koy wax. xanaa mu góorgóorlu rek fonk sëñ bi bu baax ak ak ak wa kër gi na bëgg goro yi bëgg njëkkee bëgg xarit yi jëkkër ndax sey mom du sa jëkkër rek moy sey njëkkee ci la bokk gorey ci la bokk xariti jëkkër ci la bokk waaw na góorgóorlu te xam ni sëy moom neexut fenn man daal li ma koy digal moom na nuru ay tantaam rek waaw ñun daal ñoo di yaayam na xool si ñun rek sant nañ ko nag ndax Maguette Gueye bëri wuti wax te yaru na daal xam naa fii mu fii ñu ko andi woon soobe yàlla bu ñu yàlla mayee lañ bëgg bis bu ñu fi dellusiwaatee kenn du ne Maguette Gueye lam def wala lam wax kontaan nañ ci moom trop waaw yàlla nañ fi dee si waat xew jàmm a salaam barke Sëñ Fall. waaw asalaamaaleykum wa maa ngi leen nuyu di leen fay fay naa la bu baax. tey ah, kontaan kontaan lool suñu xol sedd na lool tubaarkàlla macha allah. di ñaanal suñu doom bi suñu borom dogal tey jii mu ñëw suñu kër yal na yàlla suñu borom saxal ko fi ci barke Serigne Touba yal na fi yàlla saxal mu mel ni ay ndayam ñun daal tiituñu jàkkuñu ndax tiituñu benn yoon ndax xam nañ ni fi ay ndayam jaar rek lay jaar te yal na fi suñu borom jaarale ci barke Serigne Touba yal na mel ni ndayam. léegi màggeen mi doo koy dugg si néegu sëy boo amoon loo sama doom bi rek tubaarkàlla macha allah li oh. naan loo nuñ koy waxee noonu loo wóolu sa paaka du tee nga daas ko sama xel de dal na ci moom Maguette Gaye sama xel dal na ci moom loolu waaye nag du tee ñu soññ ko comme ay ndeyam lañ ñu te ñoo ko jiitu ci lu mel nii di ko wax mu muñ na muñ te góorgóorlu te xool ci ay ndayam rek ben suñu mën nañu baña jall jàll sax nah, di ag ci asumbenn ndax li yalla dogal mu fekk ci yaayam ci kër bi muy bintu macha allah yaakaar dal mom du fi def dara lu jaaxal nit ñi te tamit du ko fi wax yàlla na ko suñu borom saxal dal te may ko fi njabo du barke njabo solihina fi ci barke Serigne Touba ñi ko koy ñaanal léegi lan wax borom borom sama goro boobu sëñ Modou ah di wax ni suñu taaw lañ ko jox nañ ko teel nañ ko am nañ ci moom yaakaar tubarkalla am nañ ci moom yaakaar lool waaye nag du tey ñu wax ko nañ nañ ko bu baax. nañ ko teel suñu xol daal lañ ko jox suñu xol ndax màgget yàlla daa dogal ñëpp ko bëgg barke Serigne Touba parce que màgget yàlla daa dogal ñu njëkk koo gis ci taaw bu jigéen nga xamante ni photoom démb ko buñu bi ma génnee sama doom daa ñëw génne album bi ma fekk ma ma boole ko beneen photo mënu ma kii kan la sa yaay maamam ne ko kii mooy sëy si suba mu kii yóbbaale leen yóbbaale leen photoom barke Serigne Touba oto bi mu njëkk am ñun ñëpp ko am ndax bëgg ko rek te yàlla tax mbëggeel googu nag mooy sax ba tey ndax yaayam moom daal man lépp mënu ma ko wax man foofu yàllaa ma fa boole ba ñëpp féetale ma ko te daw ma ci dara nag ragalu ma ci dara ndax yaayam dama bëgg bintu wax ci nopp kër googu macha allah daal man daal kontaan naa lool kontaan naa maa ngi leen di ñaanal li ñu bëgg ñoo ko xam yal na ko yàlla defal ci barke Serigne Touba. waaw maa ngi lay fay <laughs> maa ngi lay fay. na nga gisee bisu màggal bi tey. bi neex na lool alaa daw mel na dara manqué wut kenn xiif kenn mënu fi liñ leen di ñaana kay yàlla ak sëñ Tuubaa ak Seex Ibra jàppale leen sëy bi nekk ci gën gën ci sëy yi yàlla na ci bokk yàlla defal leen njaboot gu barkeel jubóo leen musal leen ci cat may leen fan wu gudd wànd wér gi yaram na màggal gay xale bu baax la xale bu yaru doxi wut xamul lu toog ci peggu yaayam ba tey sëñ Modou Faye mi ñëw bëgg si ko kon nañ ko ñaanal ci doole seexe ba yàlla leen defal yàlla defal leen njaboot gu barkeel ba njaboot gu barkeel gu islaam barke sëñ Tuubaa ak seexe ba kontaan naa trop bis bi moom dara manqué wu moom. waaw xam nga def na ci kër gi six mois yoo xam ne parce que waaw xam nga dund nañ fi loo xam ne daal benn instant waaw mu wan ma ci daal loo xam ne man sama xel dal na su ko waaw bi ma demee tamit ci ay mbokkam li gën a jafete mbir mi laa ko wax quoi dem nañ tamit ban may ma ko te papaam mosuma gis. barke sëriñ Touba ban may moo ko laa la wax de te papa mosuma gis xam nga kooku tey taalibu Serigne Touba de moom man noonu barke Serigne Touba waaw ji waaw kon loolu sant yàlla ko waa te ñu bari xamuñ si loolu dem nañ ban may ma ko màggal Touba laa koy doog dem papaam moom moo présenté papaam papaam ne kii mu ne kii mooy sëñ bi mu nekk paa moom tamit pap Fallou di ko sant di ko ñaanal moom tamit paa bu baax waaw ndax dëgg yàlla ku bëgg njaboot moom tamit waaw kooku moom mooy loolu daal yar na doom daal ndax dëgg yàlla fi ko war a yare ci côté kon loolu na sant yàlla quoi waaw war na ma jikko boo xam ne daal damay ñaan yàlla rek mu bañ koo soppi daal waaw seytaane bañ ko man ba mu soppi ko daal loolu daal laa koy ñaanal jubóole koog ñu fekk si kër gi ku mel ni xam nga yaayam sunu yaay muy mère Diall waaw jubale koog moom xam nga mu toppee ko comme yaay waaw nu mu fi mel tamit nu mu fekk tey nit ñi mel ni mu mel ni jàpp ko jàpp fi tamit ay séeréem yi fi fekk sama rakk yi fi fekk sama mag yi fi fekk waaw loolu laa koy digal daal mu jàpp leen xam nga ni mu leen war a jàppee ko waaw comme si war a liggéey liggéey la si waaw duma ma sañ du xaar sax nit di ko sant liggéey quoi waaw loolu moom tamit vraiment man moom bëgg naa ko daal dëgg yàlla nit ki waroo xaar ñaala defal ma lii loo gisee loo xam ko war a def da ko war a def quoi waaw loolu moom tamit li ma koy wax ci la bokk quoi waaw bas moom mën naa ne du may ku nekkul ko may sant quoi ndax mën naa danoo bokk lépp moo tax duma ko sant waaw lu mu war a def la daka def quoi man loolu rek laay wax chaque instant ndax moom xam na ma xam benn instant waaw am na loo xam ne tey nag nekkul li ñuy wax si caméra quoi waaw mais moom xam na ma xam tamit am na ñu xam quoi waaw mais nag tamit yàlla baax na daal yàlla ko yàlla fay xam nga xolam quoi nit ku nekk yàlla sa xol la lay fay quoi. mais am ñoo xam ne jëruñu taxaw di wax wala wala sant wala yenn sant yi quoi dañ koy ñaanal suñu borom fay ko fay ko xoolam quoi waaw ndax sonn na si trop ndax naan jël leen caméra bi xam nga imposé nii def nii def nii xam nga di woote bakaal caméra bi kii jël leen ñii jël leen ñii ñii xam nga ñii doo leen jëlee dañ leen dugal ci internet am na xam nga tamit waxtu yéen tamit wax ju rafet quoi ak Serigne Saliou wax si Ndeyloo tamit wax ju rafet moom tamit waaw te yàlla xam na ni duñ déggee tur Ndeyloo moom moo tax yaasu di xamee ndeyloo moom moo tax keneen ak keneen tam di xamee ndeyloo moom moo tax waaw moom ndeyloo tamit ñu seq loo xam ne tey man naa ni seqoo sax ay ay ay magam ak i yu bokkal nday mooy ak Serigne Touba moom nit ku baax la xolam dara nekku si moom loolu xam naa ko waa te moom du sañ léppay rafet barke Serigne Touba te tamit loolu la demee def na si lu mën ak lu mënul barke yàlla di ma woo conseil lu ne mu def ko barke Serigne Saliou xam ni kooku moom ama fayam daal ama fayam daal waaw di ko am fay rek mu fay ku baax la nag waaw kenn de moo fi manqué quoi jaara maam jaara sama ñaari maam jaara sax la sama deuxième njëkkee maam jaara ak jaara xam nga jaara séeri bas ñoom manqué nañ ci bés bi quoi ak tamit tey waaw moom yi amoon naa yéene trop mu teew ndax dëgg yàlla mais nag jaam day pexem bu yàlla dogalam te tamit mën naa ne lépp ay mbégte la waaw ndax ba mën naa yéene mu teew fii ñoom ñëpp mais na leen ñaan si borom dafa leen ñëpp ay jàmm leen jàmm dal waaw dëgg yàlla léegi li may wax rek bas ma du ko sant te du ma ko gërëm tamit lu mu def rek ko war a def xam na ma xam quoi xolam nag moo rafet quoi ndax dëgg yàlla ak Serigne Saliou waaw li may wax nii ay mbokkam xam na ko waaw ñeneen ñeneen xam na jàmm sax xam nañ ko même nay loo moom tamit muy seen mag xam na koy bas quoi ndax maanaam am na fu jaar ak keneen ak keneen kon kooku moom lu may wax ak mbaaxam sax nu fi jógee moo tax mënuma wax ci moom loo xam ne tey benn instant waaw xam nga li ma wax sànq rek man la man moom mën naa gërëm ku ne mais am nañ mën naa fàtte ku ne ba mu la sama ko quoi waaw moom moom dama koy sant di ko gërëm moom tamit wax dëgg yàlla taxawaayam ci bés bi ak fu mu ñu teg quoi dañ koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi suñu kanam daal dëgg yalla waaw ñu koy ñaan suñu borom yàgg suñu kanam mu dem ba fekk suñu set mu fekk ay set sëtaaram ndax dëgg yalla waaw da man na ni man mënuma wax si mom dal billahi waaw ñu koy ñaan man da ñaanoo ko de am quoi mo dama koy ñaanal ak xam nga sama papa yépp nak Pa mu Fay waaw xam nga Pa musa waaw pap Dan waaw rakam yépp nak ak sama bàjjen tamit bàjjen yépp waaw bàjjen ku ma fay waaw xam nga bàjjen Kumba Lawbe ak bàjjen Soda Faye Thiès xam nga bàjjen Wali ñoom ñëpp ñoom ñëpp daal dama leen sant rek waaw wax dëgg yàlla di leen ñaana suñu borom dafa leen jàmm yàggal leen fi waaw may leen wér ak wér la nekk ñu dem ba fekk seen i sët bay dem màkk di ñëw waaw ñu leen koy langal ci barke Seydina Mohamed waaw dëgg yàlla kontaan naa daal wax dëgg yàlla vraiment di gërëm tamit sama frère ko sama rakk yi jàpp si bis bi booy tey moom dama kontaan trop ak Serigne Touba. dañ ko jàpp ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk billaahi amuñu lu mu bàyyiwut waaw ci liggéey bi suba fay fajar jëli seize boisson yi togg yi raxas yi xam nga lépp booy moom amuñu lu mu bàyyi lépp lan def ba waaw xam nga waaye ñëpp kontaan sama gars yi sax dama mujj waar si booy waa presse ni barke Serigne Touba ni booy taxawee ci bis bi tey billaahi kon loolu sant yàlla ko waaw waaw ndax sama sàng rek sama benn rakk mi Xaadim Fay dama dama toog sànq mënu man man est ce que naa am bis bu mel nii quoi barke Serigne Saliou mënu man est ce que mën naa am bis bu mel damay yàlla man sama bis mel nii quoi barke Serigne Saliou nga xam ne loolu sant yàlla quoi kontaan naa nag. di kontaan ci ñoom rek ñii samay yaay lañ ñii samay doomu baay maa ngi kontaan ci ñoom di leen sant bu baax dafa leen ma mbégte bu rëy daal kontaan naa ci ñoom bu baax di leen gërëm bu baax a baax. génn ci na moom waaye tamit neex na ndax eh, ci yaay nga jógee fekk fekk si waat yaay waaw loolu moom mbégte la neex na metti na woon métti na ndax ku la yar ba màgg ak yow tey jii nga dem ci ko tamit eh, metti na trop waaye rek dañuy sant yàlla rek te xam ne c'est la vie tamit moom àddina ànd mm-hmm. sëy boobu mënta ñàkk su <laughs> dee ne tarbiyo rek incha allah. waaw maa ngi génne na ci lenn dugg ci li nga xam ne jigéen bu nekk moom ngay ñaan yàlla muy màgg ba dem sëy tey màgget lan nga ñuy wax ci bés bi ak lan nga koy dundee ak lan nga ciy santi ah kontaan kontaan kontaan naa trop ah mbégte mbégte bu rëy rek laa ciy sentir waaw di ñaan yàlla rek liñ ci sabablu lépp yàlla def ko ci ci daraje Seydina Mohamed. gis nañ tamit sa première njëkke muy Yacine. démb mën naa ne ba léegi bi ñëwee toogul pour nga woo ko téléphone sax jot ko problème la. Yacine moom borom baax la dañ koy ñaanal rek ñu nañ fi tamit gis nañ ni mu taxawoo waa te gis nañ sant yi ñu ko sant lépp gis nañ lépp fas yéene tondi ni mu nekkee woon ba ah, ñu koy santee nii ñu fas yéene jëfee ci yoonam rek incha rabbi ba lim am tamit ñu ñaan yàlla ñu dem ba am ko ci kàttanu yàlla. waa di ko sant bu baax a baax a baax nag ndax borom baax la te xolam dafa rafet. a wax <laughs> ah Mouhamed dama koy ñaan kooku moom mënumaa wax ci moom ndax xam naa xam xam naa xam naa fi ma toll waa damay kontaan ci moom di ko ñaanal gudd fan ak weer ba li li ñaan li yéene lépp ñu yeggale ko ci barki Seydina Mouhamed rek la ñaan. tey maa ngi nuyu ñépp di leen sant di leen gërëm waaw di ak Maam Jaara sol nañ ci trop waaw ci suba ba nga ni ñoo ñoo nekk ak man ci solo yi waaw par exemple sax ma xas leen <laughs> waaye teewul ñu àndaat ci waaw dama dama dama dama leen di sant daal. di nuyu samay doom baay samay doom baay doo ko ñëwoon fii topp sama di sant ñoom ñëpp waa di sant eh, ñëpp rek kontaan daal. waa Mame Diarra dama koy sant bu baax waa deuxième jëkkee boo xamante da koo aay ki moom lépp chaque jour mu montage si vidéo dugal waaw sonn ci ba béykat de jour mu vocal ma waaye yéen yëpp yegg si na waa xam naa eh, daa am lu ko tënk rek waaye yéen a ji sant bu baax a baax. waaw maa ngi tàggatoo di sant sama gore yi. waaw mel ni Papa Mamara soldu na ci torop ñu ngi koy sant bu baax ak Bintu tan day faatu ñoom ma maa leen di sant ak tànjaal lepp ñom la daal ñu leen sant bu baaxa a baax waaw te di leen gërëm ak sama ndeke nogay ak sukkay ak mam jaara yasin ñom ñep ma leen di sant daal ah, ma sha allah